رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان فيك عبادة وصيام فدموعنا بخدودنا رقراقة تسقي قلوبا زانها إسلام تسقي قلوبا زانها إسلام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قبل كل أحد والحمد لله بعد كل أحد والحمد لله على كل حال اللهم صل على سيدنا محمد ومن والاه adada ma taalamahu min bida'i lamri ila muntahaahu wa ala alihi wa sahbihi bukuratan wa asila rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki réew mi mbokki déglu jataayu ramadan dellu siwaat nañu di àndaat ak yéen ci beneen jataay ci ramadan di ñaan yàlla buur bi tabaraka wa mu nangul nu lépp lu nu wooragum li nu deseendi mu may nu wér a kàttan gu nu ko wooree te bu nu ko wooree mu nangul nu ko yal na yàlla gërëm sunu gërëm sunuy mboolem jaamu ci koor gi yal na yàlla def sunu koor bokk ca kooru xawaasul xawaas ñi nga xam ne ñoom la seen koor gën a mat gën a sell yàlla yàlla boole ci sunu koor lu ci manqué manqué yal na yàlla tibb ca matam ga mottali ko ci mbaaxam di ñaan yàlla guddi gu tedd gu màgg gi nga xam ne moo nekk ci weer wi di laylatul qadr yàlla bu mu nu ump yàlla bu nu ump insha allah su ko defee indiwaat waxtaan rek ci li nga xam ne moom mooy dund Seydina Umar ibnul Xataab radiallahu taala anhu buñ ca noppee dana ñëw ci xel-xelu buñ ca noppee dana ñëw ci suukaru koor tey incha allah ñuy indiwaat yeneeni ngëneel ci xasbuna allahu wa ni'mal wakil xasbuna allahu wa ni'mal wakil ñeent baat yu gàtt waaye aka am solo ñeent baat yu gàtt waaye aka am solo su ko defee bu ñuy jeexal danañ ci indiwaat ngëneel dolli ko ca yeñ indi woon démb muy julli googu nga xam ne ñaari ràkka lay doon xasbunallah wa ni'mal wakil quatre cent cinquante ci ràkk bu nekk loolu démb loolu lañ indi woon imaam abul xasan assaadili joxe ko ne ngëneel li ñuy indiwaat tayit dana ca bokk lu bawoo ca imaam abul xasan assaadili lépp rek ci na xasbunallahu wa ni'mal wakiil incha allah bu ñuy jeexal waxtaan wi dinañ ci dëkk ak naafila bis bi soog di yëkkati jataay bi di fàttaliwaat rek ñu ngi ci weeru koor ñu dëkk ci ñamale gi laata waxtaan wi ñu bàyyi waat xel àtte yi wattandiku lépp lu yàq sunu koor ñu xam ne liy yàq koor nag luy dugg lay doon nekkul luy génn léeg am ku laajte ndax bu ma wooree mën naa maye deretam déet ah kay mën nga ko maye lu dul ne mën na laa indil gàllankoor boo mayee deret su boobaa loolu doo mën a maye deret du jëmmi maye deret je yàq koor mais jëmmi lim lay jural ne boo ko mayee doo mën a woor loolu mooy yàq koor kon lépp luy génn ci yaramu doomu aadama yàqul koor léeg-léeg nga gis ñenn nag dañuy woor yendoo tëf li ndax jàpp ne bu ñu wannaasoo seen lor dafa yàq seen koor te loolu ñàkk xam la lor yi bàyyeekoo sa gémmiñ yàqul koor ndax ci yow la bokk luy dugg moo yàq gémmiñ loo xam ne intérieur la nekk loolu yàqul koor li jugee ci extérieur loolu mooy mën a yàq koor ba ci pikiiru may nañu nga def ko lu dul ne pikiir bu lay yokk doole la wala boo xam ne nii boo ko jëfandikoo doos ba mën na dem ba yegg ci sa put ci yenn ti boromi xam-xam loolu mooy yàq ko mais bu dee rek danga nga am traitement yooy def bokk ca nga pikiiru loolu mën nga ko def fekk yaa ngi wor mën nga dem ci dentiste bi sa am jafe-jafe la koy saafaraal fekk yaa ngi woor fekk produit yi nuy jëfandikoo rek yeggul sa put nga wannaasu ko loolu du yàq koor su ko defee yooyu yëpp mën naa xam ku woor nag nga juum naan wala nga juum lekk dangay fay benn fan ci madhabu imaamu Malik loolu la jëlee ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa donte yeneeni madhab jëlee nañ ci njàngalem yonent bi ne boo juumee yàllaa la lexal màndal la doo fay fan boobu waaye lii école imaamu Malik yaxal ta saxal ko mooy boo juumee lekk wala nga juum naan dangay fay benn fan bu dee yaa ko tey nga kafaara bu dee yaako ko tey nga kafaara boo wooree ba ci digg ba nga tey ko lekk amoo benn ngant nga tey ko naan amoo benn ngant dangay ngay fay benn fan da fay fan boobu nga dog plus nga dolli ci ñaari weeru kafaara ñaari weer yooy woor wala nga lexal juróom benn fukki miskin wala nga goreel jaam fa jaam am boo teyee lekk wala nga tey ànd ak sa soxna yooyu noonu la ko école bi tëralee di école imam Malik dina baax lool nag ku nekk ci diine ji nga tënku ci école ne école bii laa tënku waaw borom xam-xam yu mag yi fi jiitu woon yépp ñëw gannaaw saxaaba yi ñëw ci gannaaw ñoom imaamu Malik dañu delluwaat ci seen ngir yi tënku ca waaw kon yow mii jullit bëgg a dund sa diine faaw nga am ngir moo tënku Afrique gii nu dëkkee nag fa lillaahi alhamdu wa sukkuru bu dee jullit ñi téeméer lanu juróom-ñeent fukki ñi ngi tënku ci école imam Malik boo tënkoo ci école nag dangay ngay jël ay atteem xam ne école yépp alal kitaabi wa sunna ñi ngi tënku ci alquran ak sunna ni may misaalee école yeeg seen jàngale daa mel ni ku jug dem ci marché ndugg ba wara a togg dem ndugg ndugg la ngay togg kii ceeb la ndugg kii cula ndugg ki maafe la ndugg kii domadaa la ndugg kii tabaarakallaahu suluxu la ndugg ku nekk ak la mu ndugg la muy togg bu ñëwee nag bu toggee ba yekk tur yeey wuute rek malik shafii abu xanifa ahmad ibn hanbal madhab malik madhab shafii madhab sawri madhab nangam nangam tur yooyu wuute waaye ñoom ñépp ñoo bokk benn marché bu ñu nduggee togg ya nag ñoo wuute boroom xam-xam bind nañ ci lu yaato yaatu bay ŋàññ lool di sikkal lool ñi nga xam ne dañ ne duñu tënku ci ngir dañuy dem direct ci alquran ak sunna loolu nag ko ci soobu kenn naru laa gën a réer ku la nar a gën a réer yàlla du ko sàkk ne dangay tëb rek dem direct ci alquran ak sunna loolu moom dèjà xaw ma ñan mais ñu ñëw ci ginnaaw suñu jamono yii moom lott nañ ci loolu kenn mënul tëb rek dem ci alxuraan ak sunna jukkee ci loo mën a jëfandikoo sa diine loolu da ngay sànku ndax bëri na ay masala yoo xam ne nii ijtihaad moo ko lijjanti yooyu nekkul ci alquran nekkul ci sunna mais dañoo farlu dem ballalee ci alquran ak sunna ay àtte yenn yi qiyaas moo ko ci yooyu yëpp nag xaw yi ñoom ñoo dajaloo togg ci togg bu ñor yekk tegal nu nga xam ne yow da ñëw rek tibb waaw dem ci marché bay nduggi te mënoo togg moom tey boo jugoon dégg ceebu jën nga jug ne da dem nduggi ceebu jën te mënoo togg ceebu jën man nga dajale nduggum ceebu jën nag ñëw waaye togg ko moo lay të li nga man rek mooy fekk ku togg ba noppi nga raxasu sukk loolu mooy li ngay dégg ñu naan Malik nee na Shafii nee na waaw loolu bàyyi ci xel na yenn ndaw ñi rawatina ñenn ñi nga xam ne ñi ngi gëstu seen diine te soreeguñ ci léeg-léeg terme alquran ak sunna fees ci seen nopp ba ñu yaakaar ne da ngay dem rek ci marché ba jënd say téere xadis ñëw di liir teg na yow yaa ñaan nangam gaynde ga te fekk Muusa nangamoo ko ñu bàyyi ci xel bu baax a baax su ko defee kon boo dogee ci weeru koor te tay ko da ngay kafaara soo juumee nga fay benn fan loolu mat naa xam tabaarakallah boo wooree it nga moytandiku di jonjoog sa soxna école bi daf koy tere yeneen si bi di Sayyidatuna Aïcha wax ne daan na woor di ma akolaat loolu dañ ne jagleeg yenent bi sallallahu alayhi wa la keneen bokk ci soo wooree téere bii di asmaa wi rek mi ngi koy wax lépp lu jëm ci jonjook sa soxna wala di ko akolaat yu ni mel danga koy bàyyi ba boo ca nekkee nag di ko def ba mën yu génn ci yow wala mas mën na laa jural fay fan bu yeggee ci mën yu mën na laa jural kafaara am na ngóor soo xam ne nii bu weeru koor jotee moom ci mel noonu rek lay nekk man ngaa woor nàngam sa soxna nàngam nàngam hee asaru rek asaru asaru rek defe naa ko woor sa xel war naa dem ci jàngal xuraan tudd yàlla xalaat sa borom lu dul sa xel nekk nekkul ci lu dul woor ba noppi nekk sa soxna te guddi gi sunu borom tabaraka wa taala ne dama leen ko tere woon guddi koor ngeen di ànd ak seen soxna mais léegi daganal naa leen ko ah, man ngeen a ànd ak seen soxna guddi waaw woor bëccëg bi guddi gi sa soxna leew la bëccëg lan nga cay jege sa soxnaaka akolaataka yeneen yu ni mel te guddi gi nekk fi nga mën a xaar ba guddi gi waaye dafa am ñoo xam ne nii fooye diine ji ak caaxaandoo nit ñi ak topp loo leen seen bànneexu bakkan ak décorer leen ci seen diini rekk la seen discours di wundu waaw ah ku ci bëgg a topp sa bànneexu bakkan nag mën nga leen a déglu ko defee ñu orienté la jëmale ci topp sa bànneexu bakkan bi la mën a jural merum yàlla wala iyaadu billah mu ngi noonu su ko defee loolu moo doon ñamale gi yàlla yàlla nangul na sunu koor ñu dikk nag ci waxtaan wi tey ñu ngi ñëw ci Seydina Omar ibnul Xataab radiallahu taala ak yim nu fi bàyyeel ci ay ndénkaane ki jëf ak wéye rek ci wax ci ay jalooreem insha allah bokk na ci ay waxam daan na wax ne tafaqahu qabla an tasawadu na ngeen fexe jàng balaa ñu leen a jiital ngeen nekk njiit waaw jàng leen balaa ngeen a jiite waaw na ngeen jàng fiq ba dégg ko balaa ñu leen def ilimaan na nga jàng balaa ñu laa def nga nekk xalif général bi na nga jàng balaa ñu laa def nga nekk président bi na nga jàng balaa ñu laa def nga nekk chef de quartier bi waaw balaa ñu laa jiital jàngal ibnul xajar al asqalaani bi muy firi wax jooju noonu le ca saxiixul buxaari nee na ak njiit nekk ci kanamu nit ñi dafay nekk sabab bu lay tee jàng ndox nee na boo jiitee rëy daf lay song ba nga dem sukk ci jataay ba nuy jàngee walla nga dem dugg ca école ba di jàng neena loolu dafay gàllankooru boo doonee njiit rëy def lay dugg koo xam ne dana la te jàngi kon balaa ñu laa ngay jiite jàngal balaa ñu laa ngay jiite jàngal moo tax imaam Malik mu ne daan na wax ne bokk na ci ayibu àttekat yi mooy boo nekkee juge di àtte ba ñu folli la ba ñu folli la doo delluwaat ca ca ca bërëb ya nga daan toog di jàng nga demaat fa di jàngi ndax léegi rëy def lay song imaam Malik moo daan wax loolu ne bokk na ci ayibu àttekat yi mooy bu nu demee ba nekk njiit ba nu folli leen dootuñ dem di jàngeeti dootuñu dem di jàngeeti kon Seydina na radiallahu taala anhu waxam jooju noonu lee ju mat a bàyyi xel la mooy boo tollee ci jàng-jàngal balaa ngaa jiite buxaari bi mu nettalee asaru seydina omar boobu radiallahu taala anhu daf boole ne ñu bari ci saxaaba yenent bi sallallahu alayhi ba ñuy dal jàng fekk na doon mag mhm, fekk na ñu doon mag kon Seydina Omar waxam jooju wax ju riche la wax ju kawe la Seydina Omar ibnul Xataab radiallahu taala noonu nga xamee ne noonu la waxee woon ne balaa ngeen a doon njiit jàng leen moom loolu pratiqué na ko ci boppam laataa ñu koy def amirul muminin fekk na mu fees dell ba nga xam ne doon na amirul muminin mais doonaale mufti bi Seydina doon na président de la république waaye moo doon mufti bi moo doon imaam ba nga xam ni mooy jiite masala yi di ko wër muy tontu loolu xaaris ibnu muawiya alkandi rahimahullahu moo ci joxub takk moo ci joxeb takk ci wane ne seydina umar ibnul xataab bi mu doonee amirul muminin ci la doonaale mufti bi ubbe masala yi di ko dikkal muy tontu waaw mm-hmm. nee na moom ci boppam bis dafa war waruwaayam jëm madinatul wara di seeti seydina umar ibnul xataab dara yónni yóbbu ko fa lu dul laaj ko ay masala mu ñëw ci seydina umar ci madinatul munawara seydina umar ne ko lan mooy sa tànk lan mooy sa tànk mu ne ko dama ñëw ngir laaj la ñetti yëf ñetti yëf ma fi indi ngir laaj la ko mu ne ko maa ngi lay déglu mu ne ko léeg-léeg damay nekk ak sama soxna mais sunu dëkkuwaay néeg bi dafa xat ci biir néeg la ñuy nekk mais néeg bu xat lañuy nekk su julli jotee su fekkee ne man maay jiite ndaw si nekk ci sama wet su boobaa mën nañoo xat ci néeg bi bu nekkee sama wet mën nañoo xat ci néeg bi waaye bu fekkee ndaw si dafa taxaw ci sama ginnaaw ma koy jiite dafay génn néeg bi ndax xataayu néeg bi néeg bi daal yaatu na ba mën a taxaw ci sama wet waaye xataay bi guddul ba mën a taxaw sama ginnaaw bu taxawee sama ginnaaw ci biti néeg bi lay nekk te maa koy jiite warul taxaw tollook man ndax booy jiitee sa soxna sa ginnaaw lay nekk yow góor booy jiite sa soxna mënul tolloog yow ci sa ginnaaw lay taxaw mu ne ko man nag bu may jiite soxna si su taxawee sama wet dana xaj ci néeg bi mais bu taxawee sama ginnaaw dafay génn mu ne Seydina Omar naka laay def mu ne ko da ngay jël benn saatir nga def ko sa digganteeg moom maanaam da ngeen di tolloo mais dangay jël benn genre rideau mu dox sa digganteeg moom ba nga xam ne yéen ñaar du ngeen gisante su ko defee ndaw si julli ci sa wet bu la soobee est-ce que déggal masala moomu rek mu ne ko ndaw si julli ci sa wet bu la soobee mu ne ko deuxième question bi mooy dama lay laaj ndax mën nañoo julli ginnaaw tàkkusaanam déet naafila buñ jullee tàkkusaan ba noppi ndax mën nañoo naafila mu ne ko nahaani anhuma rasulullahi sallallahu alayhi wa ndax mën nañoo def ñaari ràkk gannaaw tàkkusaan mu ne ko ñaare ràkk gannaaw tàkkusaan yonent bi daf nu ko tere soo julee tàkkusaan ba noppi dañ la tere ngay naafila mu ne ko dama lay laaj beneen bi mooy ay xisas li ñuy tuddee xisas nettali li ñuy tuddee xisas toog rek di nettali ay histoire waaw nekk gàmmukat bu doon fii la ji Sénégal mu ne ko waaw lan mooy àtte nekk gàmmukat moom toog rek di nettali ay histoire ay xew-xew yu weesu woon mu ne Seydina Omar ne ko ah bu la soobee bu la soobee mu ne mel ne daal ni mu waxee bu la soobee taxul mu soow ci lool ñaan soow ci taxul mu sawar ci lool ci nettali ay xisas waaw di ay ay ay histoire yu passé mu ne ko dama bëgg nga wax ma ci lu leer ma jàpp lang ma wax bu fekkee dama koy continuer sa wax ji leeral ma ne continuer ko bu dee danga ma koy tere ma tere ko ma bàyyi ko Seydina Omar soog ne ko nag ah damay ragal daal nga nekk nettalikat di nettali xisas ndax nit ñi dañoo bëgg loolu mu ne su ko defee ñoom ñëpp seen xel yi seen xalaat yi seen xol yi aju ci yow maanaam ñu bëgg la def la nga nekk benn star mu ne su ko defee ngay nettali ñu lay yëkkati di fittasu di la kaweel mu ne ba nga jeneer na yow yaa ngi yëkkatiku ci maqaama boo xam ne nii yegg nga ca kaw biddiwu asamaan ba gën a kawe mu ne su boobaa nag nit ñi buñ lay yëkkati ngir say waaraate yooyu say nettali yooyu ngay nettali mu ne su boobaa nag yàlla sunu borom suufeel la ba nga gën a suufe seen ndëggu ya yowmal qiyaam ca kemtalaayal na nga jàppi woon ne noonu nga yëkkati ko ba toll ca biddiw ba gën a kawe ci asamaan lan la ñuy jëlee mbokk yi ci loolu loolu boo demee ci musnad bu imam ahmad mi ngi ko fa indi ahmad shakir nee na xadis bu wér la li ñuy jëlee ci loolu mooy amirul muminina umar ibnul xitaab moo doonaale woon mufti bi di ubbee masala yi moo doonaale woon mufti bi di ubbee masala yi ndeysaan moo tax xabisa dundul jaabir nee na mosumaa gis ku ëpp yërmande ci càmmam bi mu nekkee ku jiite jullit ñi ku gën a am ñeewante ci jullit ñi ne Umar ibnul Xataab mosuma koo gis waaw mosumaa gis ku gën Abu Bakrin Siddiq mosumaa gis hmm, ku gën a jàng téere yàlla bi ku gën a jàng téere yàlla bi gën dégg diine ji gën a taxaw ci li yàlla digle bañ a jalgati jëm ca yam tere gën a nekk ku nit ñi wekk ci seen xol ne Omar ibnul Xataab nee gisuma ko waaw maanaam mosul gis ku gën a ñeewante ci càmmam nekk ku gën a baax ne Omar eh, ne Aboubacar waaw Aboubacar moom moom ñeewante ku ëpp yërmande te gën a baax bi mu nekkee amirul muminin bi mu nekkee njiital jullit ñi ne Aboubacar mosuma ko gis waaye mosumaa gis kenn ku gën a jàng téere yàlla bi ku dàqoon a jàng alquran gën a jàng fiq gën a dégg diine yàlla ji gën a taxaw ci li yàlla digle bàyyi tereem gën a am wegeel ci xolu jaam yi ne Seydina Omar ibnul Xataab waaye nee na mosuma gis ku ëpp kersa Omar loolu xabisat ibnu jaabir moo ko nettali ma nga ca asadul xaaba amirul muminin omar ibnul xataab fóore amirul muminin omar ibnul xataab fóore ji waaw ba ci naafile yii ñu def ci jàkka moom Omar ibnul Xataab ci xam-xamam bu rëy bu yaatu ci la indee àtte saxal ko gannaaw bu ko yenent bi jëfandikoo woon bàyyi ko waaw bu ko yenent bi jëfandikoo woon bàyyi ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jug naafilaatul ci jàkk Seydina Abubakar ñëw nekk xalifa ba xilaafaam jeex amul dajaloo ci jàkka ji imaam di naafila moom daal naafila bu jotee ci jàkka ji ku ne dangay def say ràkk sëlmal allahu akbar salaamaaleykum kii jàng fee kay jàng fee ñu sëlmal mat Omar biñ ko falee mu nekk amirul muminin ci la dugg si jàkka ji fekk nit ñi ñi ngi julli ku nekk di julli sa jullik bopp weeru koor ah, weeru koor mu ne image bi daal rafetul waaw image bii daal rafetul abdurahman ibn abdul qaari mooy nettali ne dama génn ànd ak omar ibnul xataab génn guddi ci weeru koor jëm ci jàkka ja mu ne ñu ngi fekk nit ñi ñu ngi séddali ko kii di julli fee kee di julli fee léeg am kenn koo xam ne mi ngi julli am ñeneen ñu ñëw di roy ci ginnaawam waaw kii day taxaw fële ka day taxaw fële am kenn léeg buy julli mooy doon imam bi ci même jàkka ji de ñenn ñëw taxaw ci ginnaawam roy ko ñeneen ñi moom taxaw fee di julli seen julli bopp Seydina Omar ci la waxee ni daal li ma gis nii buñ jëloon kenn ku taxaw jiite ñépp dana gën lii buñ jëloon kenn ku taxaw jiite ñépp dana gën lii waaw boo demee ci fatxul baari sharhu sayil buxaari ñeenteelu xaaj ba xatum ñett mu ne ibnu tiin ibnul tiin ak kudul moom nee na Seydina Omar googu mu def ci saxalu Yonent bi sallallahu alayhi wa la ko jële ndax ba mu njëkkee taxaw di julli gaa ñi ñëw ci ginnaawam terewu leen ko Yonent bi mosul woote naafila weeru koor mosu koo woote mosula wax ne ñëw leen ñu naafila bilaal wooteel ñu naafila wala diw wooteel ñu naafila mosu koo def moom daal taxaw na ci jàkka ji naafila la ñi ñëw roy ci ginnaawam benn fan ñaar mu xëy bis rek taxaw ñëwatul ñëwul fekk gaa yi dem nañ ba tàmbali mu boobu noonu le tàmbali koo tàmb bi mu ñëwatul ñu laaj ko lan moo tax bi mu xëyee suba teel ne gaa yi biig de xam naa yéen ak ma doon xaar pour ma génn ñu naa fi la ñu ne ko waaw jàkka ji mi ngi feesoon dell mi la doon xaar mu ne dama doon ragal génn yàlla farataal ko te du ngeen ko àttan loolu moo tax génn ma loolu moo tax génn ma ibnu tii nag ku dul moom nag ne yenent bi sallallahu alayhi ci roy googu ñu rayoon ko ci guddi yu njëkk ya fa la Omar jëlee ne kon mënees naa nekk donte yenent bi sallallahu alayhi wa ko sib mu jigi ba bàyyi ko mu ne li taxoon mu bàyyi ko mooy dafa ragal ñu farataal ko mu ne bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna nag xasalal amnu min dalik mhm, wa rajaha inda Omar dalik lima fi ixtilaafin lima fi lixtilaafi min iftiraaqi alkalima wali anna al ijtimaa ala waxidin anshata li kathirin min al musallin mu ne omar ibnul lëngal nekkat léegi gannaaw yonent bi faatu na moom def jëf ju ñuy farataal mënatul nekk kon léegi mucc nañ ci ne buñ koy naafile yi du nekkati farata ndax lu luy farataalati jëf gannaaw bi mu faatoo léegi nekkatul jibril wàccatul ne lii day doon farata pour ngeen ko def su ngeen ko deful am bàkkaar mu ne Seydina Omar nag ci la lëngalee li nga xam ne nii moom mooy ñu ut benn imaam mu jiite ñëpp ngir dawandi dawandiku tàqalikoo gi amoon ci jàkka ji ak dajale baatu jullit ñi ak it loolu mooy gën a sawarloo jullikat yi mooy ñu am jenn imaam ju leen jiite ñoom ñëpp ñu roy ci ginnaaw moo leen di gën a sawarloo ndax buñ ko bàyyee noonu kenn kenn di julli kon ñu bari duñ sawarate ci naafila te ku ne mën na ñëw bu ñu waroon a naafila fukki raaka kenn ku nekk ñëw naafila ñaar wala ñeent dem sa yoon waaye bu ñu dajalee benn imaam mu jiite loolu mooy gën ah nee na ci la dogoon jël Ubay ibnu Kaab sant ko mu jiite ah bi Seydina Omar génnaatee beneen bi fekk gaa yaa ngi julli Ubay a ngi jiite ñépp di roy ci ginnaaw Ubay mu ne ni'mal bid'atu haadihi bidaa bii ka rafet waay bidaa bii ka rafet waay ñi nga xam ne nag dañuy nelaw Euh, ba yéex koo naafila moo gën ñi nga xam ne dañuy teel a naafila maanaam lu mu gën a guddee gën ña bàyyi ba mu gën a guddi ñu taxawee ko moo gën ñi koy teel a taxawe <laughs> ndeysaan sama sama sama sama waxtaan baag wahabiya ya ca ca bidaa ca bidaa waaw ca bidaa ndeysaan ndax bidaa bu rafet am naam déet wahaabiye yi ndeysaan ne ne dee rek bidaa bu rafet amul waxu Seydina Omar ji laa doon wax ne ni mu leen di déranger ab wahaabi rek ngay dégg Seydina Omar wax ba pare mu ne kon mu ne noo Omar li mu wax amul ndax li mu wax yenent bi daan na ko def wahaabiya doo ko ñeme man de ñemewuma ko Omar li wax amul ñoo ko ñeme waaw moo tax euh, wax jii nii Omar wax buñ ko ay buñ ko mënoon a wéradil bu fekkoon daa nekk ci téere boo xam ne gis nañ ci kenn ku ñaan am nañ werante ci moom ak nangam jël nañ wax ji sànni ci àll mais gannaaw wax ji dafa wér ci nga nekk ci saywul Buxaari mënuñ ci dara moo tax nag taawi rek lañ ci man naan waaw c'est-à-dire du nii ndax nangam ndax li leen ciy déranger mooy seen pas-pas ñoom da cee bokk bidaa bu rafet amul bidaa bu rafet amul te Seydina Omar ne naafila weeru koor nii imaam di jiite bidaa bu rafet la bidaa bu rafet la ñu ne non loolu du bidaa waaw wala ñu ne bidaa la ci luxa rek bidaa ci luxa nga ne leen luy bidaa ci luxa ñu ne la mooy loo xam ne daal yaa ko njëkk def <laughs> ñoom Ibnu Manzuur ak ñoom ñëpp ba demee ci seen téere yi bidaa ci luxa mooy loo xam ne yow yaa ko njëkk def yow yaa njëkk a créer mbir mi comme badi'u sama wal ard yàlla moo fent asamaana juróom-ñaar ak suufu juróom-ñaar loolu mooy biddaa mooy loo xam ne fent nga ko ala xayri misaalin saabiq te am te amul foo ko royee ok yow yaa njëkk def mbir mii te amoo foo ko royee loolu mooy bidaa ci luxa bu dee bidaa ci luxa la sax lañ wax seen wax jooju dafay dàqu ndax Seydina Omar li mu def njëkk koo def yeneen bi sallallahu alayhi moo njëkk naafila ànd aki saxaabam ñu roy ko ca waaye Seydina Omar lii bidaa mooy programme imaam imaam bi gaa yi ñëw mu fas yéene leen a jiite loolu bidaa la yenent bi mosul woote ne ñëw leen ñu julli wala muy xaar gaa ñi pour ñu ñëw mu war leen a jiite naafila déedéet day ñëw daal taxaw di naafila gaa ñi ñëw ci ginnaawam di julli kon loolu bi la beneen bi ràkk yi yonent bi bàyyi woon Seydina ma dafa ñëw duble ko yonent bi fukki ràkkaak safa ak wiitar muy fukk ak ñett ci yenn riwaaye wala juróom-ñett ràkk safa ak wiitar muy fukk ak benn ci yenn riwaaye mosu koo weesu Seydina Omar moom ñëw yóbbu ko ñaar fukki ràkk yu teg Hmm, loolu tamit bidaa la ah loolu daal daanaka jaratul sonn sax di ci jéem a convaincre wahabi yi waaye am na ci ñu bari nag yàlla dimbali na leen ba nga xam ne ñoom seen réer gi nga xam ne nekkoon nañ ci ci loolu gindeeku nañ ci ba dellu si ginnaaw waaw ba dellu ci ginnaaw ba nga xam ne pas-pasu kenn di leen gëmloo naan bidaa bu rafet amul bidaa yépp réer la ñoom dinañ ci génn ndax loolu bu amee rek waxu Seydina Omar ji da nga koy weddi sànni ko ci àll ba te loolu musiba la mu ngi noonu kon Seydina Omar ibnul Xataab tey bu ñu amee li ñu am nii ci weeru koor di dajaloo ci jàkk yi di naafila imaam di jiite moom lañ koy jaajëfalee waaw ndax yenent bi defu ko woon bàyyi na ko moom yenent bi lam daan naafila la def rek gaa yi ñëw roy ko ca mu defaat gaa yi ñëw roy ko mu bàyyi ko ñu day ragal ñu farataal ko ndax nekkul lu ko yàlla ne dee leen ko def naafila daal la doon def gaa yi di ko ca roy moo tax Seydina Abubakar bi mu ñëwee xalaatul sax dellu ca dafa am yoo xam ne Omar moo ci ëppoon gis-gis ba ci dajale Alquran biñ koy bëgg def mu njëkk a ñëw proposé ko Seydina Abubakar Seydina Omar ko ko dañoo war a dajale Alquran ndax ñu bari ñu mokkaloon Alquran ñi ngi faatu ñenn ñi ñu ngi dem ci guerre yi ñu ngi leen di faat mu ne ko lool bu continuer nag yàlla mooy sàmm téere bi mais mën naa am lu ci sooxe kon dama gis ñu jël téere bi bind ko dajale téere bi yépp bind mu ne ko he ndax dañuy def lu yenent bi defutoon naw bakkar ndax dañuy def lu yenent bi defutoon loolu la wax Seydina Omar Seydina Omar nee na première discussion bi ma gis ne góor gi yaram bi dafa tàng mënuma koo convaincre ma ne naa bàyyi ma bàyyi war ba jëmmi jamono ma ñëwaat waxtaan ceeg moom nee na dañu ma di ci wax ak moom ba yàlla yaatal dënnam comme ni mu yaatalee sama dënn ci lañ soog di am dëppoo ci dajale alxuraan def ko ci kaamil bii nii tey ca ca façon bañ ko dajale woon ñoom nga xam ne amul tomb amul imaas <laughs> kaamil yi ñu yor nii yëpp ay kaamilu bidaa la yi ñu yor nii yëpp kaamil ba am tomb ak imaas bidaa la yeneen bi bàyyi ko fi saxaaba yi bàyyi ko fi waaw gannaaw saxaaba yi la ab buur jël décision ñu tomb kaamil yi maas ko loolu tamit farluk Seydina Omar la <laughs> waaw pour walla ne rek moom amoon na yaatu dënn ba nga xam ne yenn yim gis ne interel la pour l'islam nekkul lu ko yàqal loolu bidaa bu rafet la ko jàppee pour ñu war ko def gars yi dem na sax ba buñ demee ba mbir yi diis ci ñoom ñu ne ah non nag xam nga nag saxaaba yi sax lu ñu def moom sunna lay doon ah ñu ne leen waa lu tax Omar tuddeewu ko sunna tuddee ko bidaa mënoon na wax ne kay sunna si ma sos su rafet la comme yeneen bi moo maa ngi leen dénk sama sunna ak sunna xulafaaw yi waaye lu tax Omar bàyyi ko bàyyi fi sunna tuddee ko bidaa ba tey rek déranger gi leen wax ji déranger la bokk. yal nañu yàlla suturaal. saxaaba yi ku mel ne doomu Seydina Omar ji rek am na yoo xam ne ci diine ji moom moo ko ci sos dolli ko ci ba noppi taxaw ne maa ko ci dolli am na baat yoo xam ne ci taaya Aboubacar dolliwu ko ci Omar dolliwu ko ci Seydina Ousmane dolliwu ko ci Seydina Ali dolliwu ko ci parce mhm. benn mbokk mu ne ma non amul ma indil ko ko mu ne c'est-à-dire naa vérifier xool ba xam ndax wér naam déet <laughs> yàlla ñu yàlla suturaal yàlla ñu yàlla suturaal mbokk yi loolu mooy li nga xam ne tey moom lañ indi bu ëllëgeeg wala bu altine jàmm incha allah danañ dellusiwaat wéyal ci fi ñu toll ci Seydina Umar ibnul ñu ñëw ci xel-xelu xel-xelu tey mbokk yi ñu ngi ci indi waxu ibnu Samaak rahimahullah wax ja boo demee ci siiru alaami nubala duñ ko fa fekk daf ne adduniyaa kulluha qalil àdduna lépp dafa néew walladi baqa minha qalil li ci des a gën a néew walladi laka min al baaqi qalil li néew li li ci des li nga ci am a gën a néew walam yabqa min qalilika illa illa qalil sa lu néew li des ci li néew ci àdduna yow lu néew a ci des àdduna <laughs> du dara tuuti la li ci desit du dara tuuti la yowit li nga ci am du dara tuuti la sa lu tuuti loolu nga ci am tuutee ci des allahu akbar ibnu samaak est àdduna du dara yow li nga ci am du dara loolu nga xam ne moom nga am ci àdduna bi dul dara te du dara ah li ci des du dara li ci des du dara àdduna as tuut la li des ci àdduna as tuut la li nga am ci àdduna soosu des lu tuut lu tuut la te lu tuuti li nga ci amit it tuutee ci des ndax wax ju rëy àdduna àdduna guddul àdduna guddul li ci des bareetul yow li nga ci am lu tuuti la yow li nga ci am guddul te loolu nga ca am nga xam ne guddul tuutee ci des àdduna li ñu naan dafa gàtt yëpp xoolal yow yaa gën a gàtt àdduna la ñuy wax ne moom la sëriñ Fàllu Mbàkke rahmatullahi alayhi waxoon bañ bañ ne ko mbàkki waaw bañ dalee wax ni àdduna day tukki ak léegi lu tax ba léegi tukkiwul mu ne mu ne ku faatu rek sa àdduna tukki ku faatu rek sa àdduna tukki waaw ku faatu rek sa àdduna tukki mhm. ku faatu rek sa àdduna tukki allahu akbar yàlla <sighs> ñu yàlla yërëm ku tukki kon na nga xam ne àdduna yàggul li ci des bareetul yow nga ñëw ci àdduna li nga fi am bariwul li ngay dund bariwul te li nga fi am bariwul xam nga koo xam ne soixante ans lañ la wax ngay dund nga dund cinquante ans lu la fi desee de soixante ans du dara ci àdduna bi boo ko génnee ba mu door léegi cent ans sax du dara ci àdduna bi bañ ko génnee ba mu door ak léegi léegi imagineel yow àdduna bi dox na ay million années yow nga soog di gane àdduna nga war fee dund benn cent léegi soixante-dix ans yi dund nga ko mu dese la trente kon lu néew lii di cent yi dund nga soixante-dix yi li ci des a gën a néew muy trente hmm, kon na rafet waaw ah, na rafet de na rafet na rafet yàlla ñu yàlla xiir ci rafetal insha allah loolu moo doon xel-xelu ñu xalaat ci te góor-góorlu ci bàyyi ci xel ñu ñëw ci suukaru koor Euh, suukaru koor ba tey imam abdul hasan ashadili moo joxe ngëneel li nee képp ku bëgg yàlla nekk sa ndimbal nekk sa weeruwaay ci mboole mi mbir bëgg yàlla musal la ci xayu mbooleem mbindeefam yi yàlla defal la ndimbal defal la maxabba muy cofeel ci xolu jaamam yi yàlla tibbal la ca magasin wërsëgam yu yaatu ya mu ne bis bu nekk del wax lii xasbuna wa ni'mal wakiil quatre cent cinquante xasbuna allahu wa ni'mal wakiil quatre na gannaaw boo noppee ci quatre cent yi nga wax fanqalabu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum suun juróom benn yoon six fois fanqalabu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum suun nga wax ko juróom benn yoon nga wax ko juróom benn yoon soo ñëwee ba ci juróom ñaareel ba nga soog di wax ne wattabau ridwanallahi wallahu du fadlin azim nee na képp ku saxoo lii di nga nekk ci kaaraange sunu borom ak dencu sunu borom ba nga xam ne du réer danga nekk ku nu ñeewante ci sa mboole mi yëngatu ak sa mboole mu dal yàlla dana la wattu ci loru mbooleem bindeefam yi xasbunallahu wa ni'mal wakil quatre cent cinquante ñeenti téeméer ak juróom fukk boo noppee ca loola nga wax fanqalabu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum suun fanqalabu fanqalabu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum suun nga wax ko ba muy juróom-benn yoon bu juróom-benn yi matee nga continuer wat ne wattabau wattabau ridwaanallahi ridwaanallahi wallahu zu fadlin azim nga wax ko benn yoon nee na daal lii saxoo yàlla dana defal ndimbal mhm. lii ku ko saxoo yàlla dana la defal ndimbal toftal na ci beneen gëneel nga xam ne boo noppee ci loolu mën nga ko jàng ay baat la moom it li mu aaya bi nga koy jàng muy azizun kaafin qawiyun latifun azizun kaafin qawiyun latifun nga jàng ko ñeenti téeméer ak juróom fukk moom gannaaw boo defee xasbunallahu wa ni'mal wakil ñeenti téeméer ak juróom fukk waaw loolu nag boo bëggee jañ lépp loo xam ne nii ay problème la ci lu gaaw boo jàngee laaya ji ba noppi ngay wax baat yooyu azizun kaafin qawiyun latifun di ko wax ba muy ñeenti téeméer juróom fukk azizun kaafin qawiyun latifun mu ngoog waaw danaa ko wax ci jamono ci jataayu lislaam ma ne jullit day bari bagage <laughs> waaw jullit day bari bagage bari bagage su ñaan ah su ko defee rek ngeen jël seen agenda di bind c'est important li tax ren ñu delloo si euh, suukaru koor bi ci ñaan yi ay jamono yàgg na daan nañ ko joxe léeg-léeg nit ne la ah nangam joxe woon ci jamonoy nangam de ba ma koy jëfandikoo ba tey nàngam ak nàngam mu ngoog loolu rek la njëriñ lool rek lañ ci jublu njëriñ loolu lañ ci jublu yal na yàlla def ci barke ci képp ku ko jëfandikoo incha allah barakatil quraanil azim mm-hmm. su ñu yam foofu ku ci am lu lënt rek boo jokkook ñun ñu leeralal la ko ci lii ñu joxe nii insha allah ñu ñëw ci naafila bis bi yëkkati jataay bi naafila tey bi àjjuma guddik samedi mu ngi doon ñaari raaka raaka bu dee faatixa benn yoon qul huwa fukki yoon ak ñaar ñaari raaka benn sëlmal raaka bu ne faatixa benn yoon qul huwa waxaat fukki yoon ak ñaar suba ci samedi ji bu nu yendoo ba ngoon jot guddig dimanche naafila gi mu ngi doon ñeenti rakka rakka bu ne faatixa benn yoon tabbat yadaa abi lahab ba mu jeex ñetti yoon qul ba mu jeex benn yoon bu ñu yendoo samedi ba ngoon jot ku dégg dimanche ñeenti raka bu ne faatixa benn yoon tabbat yadaa abi lahab wa tabba ñetti yoon qul huwallaahu ba mu jeex benn yoon trois tabbat yadaa un qul huwa allahu ahad dimanche bu nu yendoo ba ngoon jot di guddig lëndi ñu joxewaale naafila gi gannaaw altine la ñuy dellusiwaat dimanche bu nu yendoo ba ngoon jot guddig altine naafila gi ñeent rakka lay doon rakka bu ne faatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon inna anzalnaahu fukki yoon ak ñaar douze fois ayatul kursi un inna anzalnaahu fii laylatul qadr douze fois fukki yoon ak ñaar dimanche bu nu yendoo ba ngoon jot guddik lëndi altine bu nu yendoo ba ngoon jot guddik talaata naafile gi mi ngi doon euh, ñeenti raka ba tey raka bu ne fatiha benn yoon inna anzalnahu fi lailatul qadr juróom-ñaari yoon qul yaa ayyuhal kaafiruun juróom-ñaari yoon qul huwallahu ahad juróom-ñaari yoon bu ci nekk sept fois quatre raka nekk ñaari sëlmal raka bu ne fatiha benn yoon inna anzalnaahu fi laylatil qadr qul yaa ayyuhal kaafiruun qul huwallaahu ahad bu ci nekk juróom-ñaari yoon buñ ko defee yàlla ñu ko yàlla nangul di leen sant di leen gërëm ci déglu bi seen mbokk Makhtar Sarr la woon ba altine jàmm incha allah ñu del siwaat ci jataayu ramadan di ñaan sunu borom subhanahu wa mu may nu wér ak fekkeek tal jërë ngeen jëf ci déglu bi du nag dëkkuwaay waruwaay koddaay yàlla na yàlla yombalal na ko fan nu gudd waan ak wér gi yaram yàlla na yàlla defal na ko yàlla na yàlla defar suñuy affaire yokk suñu chiffre d'affaires may nu yaram bu sedd bu ànd ak xol bu sedd walhamdulillahi ala tamaami nasaluhu xadma ala alislaami xafidana allahu min al afaati bi xurmati alqurani wasalaati subhaanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an laa ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا رمضان فيك عبادة وصيام فدموعنا بخدودنا رقراقة تسقي قلوبا زانها إسلام تسقي قلوبا زانها إسلام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام